Mohamed Press di koo xamante ni kenn la ci réew mi waaye kenn la ci Sénégal euh, li mu doon dañ ko koy nungul li tax dañ ko koy nungul mooy jàmbaar la macha allah am xam-xam lool te vengé wu ci maak moom ñu bokk dëkk géejawaay bërki démboo njaay Lac de Guiers am combat mu am lu mu ci def ñun waa géejawaay ñu ñëpp ñu teg ci suñu bët tey naqar wi am ma gis ko mu ñëw jàppale rakam doomu ndeyam muy Lac de Guiers ak Balla Gaye 2 tey bés bi noo ko gisee lan la la def waa jàmbore parce que Balla man nekk sëriñ mbëri Géejawaay yëpp parce que ku ku nekk euh, mbëri Géejawaay hmm. mënuma ko wan ginnaaw and pas dubales encore nekk borom baax jur ay ñaari doom boo xamante champion la hmm. comme ñuy ñaan yàlla pro xaruka ajun and ñaan yàlla combat bu munta nekk Balla Gaye munta am léegi mu am victoire hmm. parce que euh, pa bi liggéey woon na juru ñoom defara ñoom aduka ñoom namutu dara comme paa bi màgget na mm-hmm. an ñun egsi na ba fii nii démbo balagee wooma di man paa bi dafa génne aduna man ñoo la matin jaala ko encore di moom ok deux heures dinaa ñëw pour denc bi mm-hmm. loolu moom ma indi fii tey mais lan moo nga koy conseillé ci wàllu taxaw tànk yi papaam taxawoon ba mën a uuf fula an fayda comme moom am parce que Balla Gaye sa nit boo xamante dafa am jom. Mm. dafa àndaale fula an fayda. loolu moo mbëri boo xamante du takaw. dinaa ñoo jëre yow dem yoonam. comme ba Balla Gaye musu ëpp trent minutes. comme nit bu mel noonu mu toppatu loo ko papam. comme papam génn woon na Sénégal bër nekk champion. Mm. lagi foo Balla Gaye topp ci papam encore parce que Balla Gaye musu génn ci réew bi ci ci ci làmb.